la ñu jot information ni daal dinay wuju yàlla sunu borom ginnaaw bi ko benn tawat daanelee tawat bu yàgg lool tey nag la ñu daal di annoncé na ñibbi këram gu mujj mu doon na xaritis bi nga xamante ne jamono bi ku ci nekk mu ci àddu ndax bokkoon na ci milieu musique daan ñuy bégal saay su nekk bés bu nekk tey sunu borom yóbbu ko groupe Tim Top K 221 yëkkati ab jaal di ko teg ci loxo képp koo xamante ne mbokkam nga xaritam baa ngay am di ko ñaare sunu borom yërëm ko xaare ko àjjana ak képp ko fa daal di fekk te yéexee ñu maa ngi sàkku si képp koo gis vidéo bi nga dugg ci commentaire yi ñaanal ko nga partager vidéo bi ndax nekkoon na ko xamante ne dañu naan bégal saay su nekk bés bu nekk